arbitre na soufflé de seen diggante Gris Bordeaux gauche Balla Gaye droite Sitor soufflé na Balla toj nen ñu ngay lewaatoo eh Balla daw na jëli Gris Balla jël na Gris Balla Gris Balla Gris Gris war na Balla ngay xataal Thank mbokk yi le combat de la clarification Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye mooy jàkkaarloo ak Gris Bordeaux le tigre de Fass le 7 août à l'arène nationale mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi lamb ji en live lay doon pay ci seen affiche point com daw leen nag jënd ji gaaw prévente yi ndax 9 euros 99 dong lay jar waaye nag bés bu ngeen xaaree ba le 6 août 14 euros 99 ngeen koy mën a amee kon daw leen gaaw ndax live ba mosul am fenn ngeen di am foofu ci seen affiche demal ay ca salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV Omar ni nga ko gisee nag ñu ngi fii cëriñ cëriñ nag yaakaar na ne Gris Bordeaux yàgg na fay ware di dem stade di wuti ndam ni ko ma juumul nee fii la war a waree waatee takk ngembam ànd ak i mbokkam ànd ak famem wutali fa nga xamante ni moo di sa arène nationale fas yéene jàkkaarloo ki nga xamante ni tey moo di Balla Gaye 2 de Lion de Guédiawaye ak Lutte TV nee naa leen dara du leen raw kon nag kan def parce que dégg naa ne may nañ leen ay ticket yu bëree bëri bëri kon nag li des yaakaar naa si supporter yi Gris si ñoom la dese c'est bon. ayca sa waay bëgg naa la. waaw bëgg nañ la faaw. naka yëg nii. waaw ah, sant bu fekkee. waxal bu baax naka waajtaay. waaw ñun instant yii pare nañ la faaw. waaw ah. ah, pare ngeen baax a baax. billaahi dégg naa jox nañ leen ay ticket yu bëri. waaw waaw waaw ñuy Cheikh Ba joxe na fi ay ticket. Mhm. gars yi jot nañ mhm. mhm. bi si yéen la def. waaw suba moom incha allah heures. gaa yi takk jóg damay sant incha allah. daan Balla Gaye daan bu rëy incha allah. mais foofu daa mel ni dégg naa la gën a jege de est-ce que gaa yi duñ fa jiitu ndax Guédiawaye la gën a jege. ah mais loolu du dara loolu du dara. Mhm. te moo tax man ñu war a teel dem noonu. 10 ñu ñëpp ñu takk. feesal feesal ko. wala Serigne Touba mbër ñoo def lu ci war. moom na yëngal si suuf rek ñu ngi yëngal si kaw. ci kaw di ngeen ko gérer daal. non maa ngi lay bëggee. mais dinaa ñu ngi waaj baax a baax. Hmm. waaw. dem defar wàllu waa ji rek ñibbi si waat naag. est-ce que noonu maanaam am nga ci yaakaar ni nga koy waxee nii nii. loolu par force la c'est automatique. Hmm. waaw ndam bi ñooy borom dañ ko soxla ñoo ko gën a soxla foofu. tigre de face. xaftaan bi yàgg na gëj na tooy. bu tooyee dañu jël ndam li indiwaat ko maintenant. gaynde mer la fanaanoo ah. mais suñu yof la mobilisation si ñun la fekk baax maa lay dégg nga naan foofu géejawaay la gën a jege mais ñun maintenant ku ñu xam dañuy dem ak maas ñëw maas ambiance suñu yof la am déet buñ jugee rek Ndakaaru yëpp. Ndakaaru yëpp Ndakaaru mooy bëre. Ndakaaru mooy bëre. leer na ñëpp. combat bi si pour yow pour yow si lay jeexee. si lan lay jeexee. <laughs> non non foofu bu dee xeex moom suñu yof la. Ah. giri ah. loolu moom yëfam la. Mhm. waaw mais bu dee li si des moom ay jël bi nii lay demee. loolu dañ koy bàyyi si loxo yàlla li si des mooy suba ñu teel a jóg takk jóg dem jëli ndam li ñibbi si di ko ñaanal nag jàmm ak salaam bordoole di ko ñaanal it Balla Gaye mhm. na ñëw si jàmm ñu daan ko si jàmm mu dellu si jàmm dégg naa ne jox nañ leen ay ticket yu bëri. waaw yu bëri kay. Midina Colobane Fass Grand Dakar ñëppay takk ju kay. waaw stade ñoo koy feesal. Hmm. lool force la. dem gunge Gris Bordeaux. ñun ñoo koy diriger ñoo koy daan nu ñu neexee na lu ñu neexee lañ koy daanee. parce que daan Balla yomb na. waaye yow Balla Gaye premier combat bi gis na nu mu demee. Mhm. waaw méttiwul. méttiwul lépp tumaroo la. lépp tumaroo la méttiwul waaw. mais mobilisation daal yéen pare ngeen. yaakaar na nañ ci côté yëpp bëgg naa la yow. ah delloo ziar yi. naka waajtaay yi. ah sant yàlla bu baax rek. comme ni ko sa gars yi waxee rek. ñu mhm. moom pare nañ fépp. li am moom. xam nañ ko. Mhm. comme dab comme dab rek yeewu fajar. comme dab ñoo koy feesal stade bi moom ñooy borom ñun ñëpp xam nañu moom ñun diir bu jugee moom Ndakaaru day jóg hmm. te Ndakaaru bu jugee nag mais daa mel ni foofu moo gën a jege géej waaye de mais problème du gën a jege de gën a bëggal te gars yi combat bi ñoo gën a bëgg fuuf hmm. suñu te incha allahu rabi moom. ah ndam moom fii lañ koy indi moom. lan lu bees la la war a xaar. lan lu. lu bees. ah bees moom ñu am ci côté yëpp. côté ambiance yëngal yëpp fépp. ndax dañu dañoo pare ba pare. ndax ñun pare nañ moom. Hmm. macha allah suñu mën entraîné na. Hmm. kenn du ko xool di ko yab. waaw ñun supporter pare nañ. waaw gunge ko yóbbu ko mu daan ñu indiwaat. incha allahu rabi xool leneen. maa ngi lay bëggee la góor doole day jël bëgg naa Bougar gaa yi daw de dégg laal boy ci biir dara eh, Balla Gaye day kat boy waaw dëgg la koy teelu nag mu wax ayca ñu ngi ak prési prési nag ne dégg naa boo yëpp di jibile nee naan yaa lay jox ticket. waaw ah, booy ñoo tam may xeex rek mooy loolu. Mm-hmm. booy xam na rek quartier bi dafa mm-hmm. doon metti pour booy am ticket day metti nga am ñeen ñu ko doon jox benn clan boo xam ne dañuy dañ koy téye wala ñu dem ba stade di ko jaayaat. di ko jaayaat moo tax ma teel a xeex loolu ne kon de may ñu ñu ticket. Mm-hmm. da nga ko teel tas quartier bu nekk am. quartier bu nekk a jox booy seen ticket. métti woon na trop. métti woon na dégg moo ko joxe. Cheikh Ba moo ko may moo may 1500 billets. loolu bëri na de. 1500 billets 4 millions 500 mille. ci xaalis démb la ko may si billet. si xaalis boo koy calculer si xaalis 4 millions 500 mille. Mm-hmm. démb la ko may ay 20 ba mu koy may tamit bu da ko kii moo ko publicité télé Medina TV. Gris Bordeaux dugal ak statut. kon xam nga loolu maye bu leer la. xam nga foofu triant amu fa dara amu fa. parce que Gris Bordeaux bu ñu mayee mu dugal ko statut kon xam na ne yëg na lu ñu maye. tey ñu woo ñu ne ñu Cheikh Faye bu nekk jeeku. dem leen mu jox leen billet yi. ñu ñëw jox nañu billet yi amul benn problème. kon bu nekk ku nekk bu amee responsable di la ñëw ba si yow jox la sa billet. lii mësu fi am. moom si doo nga am. kon yéen nag lan lan lan lan ngeen lan lan war a xaar ci yéen yéen ñi nga xamante ni tey da ngeen daan pene da ngeen daan sonn pour am billet ñu ñëw may leen mille cinq cent billets. ñëw fees na stade bi mu fees dell rek. Hmm? kii wax na loolu. yoo la stade dañoo ñëw stade pour feesal ko Balla Gaye ñun bëgguñu benn supporter am dugg dañuy dugg stade feesal ko bu mu bu mu fees bilaa walaay Balla Gaye supporter am duñu sax dugg moom balaa ngeen dem kan ñun xanaa looloo leen siy génne te ñun laa lay wax nii ñun wi tey ba duñu nelaw barke yàlla tey duñu nelaw Balla Gaye moom xam na ni moom dafa jeexal moom dafa jeexal quoi ndax moom Yékini sax wax na ko nee na ko yow da ngay góorgóorlu xool loo def Gris Bordeaux da ngay jàpp daan ko te Modou Lo ñoo ngi ñëw jëlaat suñu revanche Modou Lo. combat bi sax combat bi Dakar moo sol combat Dakar la ñëw Fass Dakar yaa boole Fass boole Dakar. mais sas bi est-ce que du ngeen décidé en tant que première tigre ñu fusionné rakam yi ñëw am ndam moom mu war a ñëw nekk seen mag. du métti du métti si moom xam nga lu tax du métti si moom parce que daa xam lu ko wër daa xam lu nekk si ginnaaw nante yee ko wër ñun duñu ay ngaar fii la duggoo fii la yoroo giri saa bu wootee day gis mobilisation bu mu am keroog mosul am si kër moto boo jëlee man maa jëloon responsable dañ lay solo solo essence. mooy dëgg mm-hmm. bu ñëw dañ lay solo essence station. nga bokk si convoi bi. loolu mosul am nga kon bii nag suba nag suba lu gars yi war a xaarandi lu bees côté ambiance yëngal moom la fekk baax. ndax 5-5 mooy nii waaw maintenant ambiance moom bu nekkee asiko. Mm. booy kusum yaay fii booy. di di di di di di di di di di di di di di di di di di di ñee ñee booy maintenant ñee xëy nañ sant nañ dañuy sant ba rafet toog xel su nekkee tamit Gris Bordeaux xam la la wax soxlawuñu nit ñun su nekkee sañse rek fii la fekk baax mais suñu dem instant soxlawuñu nit sañse xam la nañ bëgg ñu ñëpp ñu pën na dem stade ndax yoole moo ñu fa yóbbu yoole stade bi yëpp ñu wàcc ma asiko bi tuuti jiiri way naa la sa waay bëgg naa ah naka waajtaay booy yi wër nañ leen de ah waay waaw mooy loolu ah ni booy dañ pare nag eh yàgg na yow gaan hmm. billaahi taay kay moom mooy loolu ak sa waay li lañuy xaar mu jot hmm. sa waay li mu gëj a bëri nii est-ce que du ko ànd non moom lañ doon waaj waaj yi moom kase la ñuy waaj suba rek lépp leer bala gay ngay waxal de billaahi bu bu su xeexee ma duma ko su bëree ma daan est que duma Balla Gaye yomb na noonu tamit. combat bu gaaw ngeen di bu kan demee ay jàpp daw tëb ki damay taxaw bagaar ak moom duma ko ba mu wadd barki Serigne Bamba duma ko ba mu wàcc. lu ko mbër lu mu ko mutul def laa lay def gi yow Balla. ma lay ba nga bàyyi. soo ko am combat yaay soo ko am combat. c'est le Bordeaux eh, la mer bu yàgg mer quatre ans lañ toog di mer waaye di baal Balla mu pour mu ñëw. billaahi mobilisation bi. waaw nice comme dab rek mu nii stade bu ñu ñëwee rek gars yi xam ne ñëpp ñëw neen waa Medina waaw Fass Colobane Gueule Tapée fépp mhm. Dakar daal maanaam. biir yi moom mat na ba pare. ñun ñëpp ñoo ko téye suñu bopp xaaruñu Gris Bordeaux si dara Gris mosuñu jox dara ñu ñooy téye suñu biir bopp suñu engrais bopp ak lépp. ñoo mm-hmm. ko defal suñu dama suñu bopp esat mm-hmm. voilà jënd t-shirt seer pour Gris Bordeaux Gris nekkul àndandoo ak dara de ah. ay mbokkam lañ ay mbokk ñu ah, la dëkk fii waaw ñu ñoo ko fa am quoi benn lañ ñu ak moom mm. sëñ Bamba yëngal bi yëngal bi ah. ba mi naa ñëppay ñëw mm-hmm. waaw asiko yeeg ndënd bi ñoo ko Guédiawaye Faysal ko tamit kat Guédiawaye benn côté beneen kii bi beneen aléa bi la leen di may aléa bële li ci def yëpp ñoo ko moom voilà booy ñëwee ngeen dem daaj si kaw na le ngeen bàyyi ñoom si suuf ñoo ko fa am waaw Gris Bordeaux yaakaar naa ne comme ne ngeen am ngeen am ngeen ay billets mobilisation bi pare ngeen. Ah, waaw yéenay war a yëngal si kaw moom mu yëngal si suuf. mu yëngal si suuf waaw. waaw mais saa waay saa la laa koy laaj giri. Mhm. giri ñun instant yi nag wax dëgg fa yàlla bii mooy dernier combat. giri combat bi du ay combat de. par force la ñëw jël fa li ñu am dem suñu yoon. nekkul sax giri soxla ñu sax ñuy bëri si état bi si boppam. ñun mais cinq heures pile arbitre bu sifflé war na jeex ñun waruñu xaar cinq minutes boo doole waaw pour nga teew yeewi yeewi askan bi dafa xew giri giri yeewuñu picc giri boo ñun dañu sonn voilà lii nag mooy dernier sens trois points bi lañ soxla ñoo ko fa am dawal waaw loolu arbitre na soufflé de seen diggante Gris Bordeaux gauche Balla Gaye droite Sitor soufflé na Balla toj nen ñu ngay lewaatoo eh Balla daw na jëli Gris Balla jël na Gris Balla Gris Balla Gris Gris war na ngay xataal Thank le combat de la clarification Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye mooy jàkkaarloo ak Gris Bordeaux le tigre de Fass le 7 août à l'arène nationale mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi lamb ji en live lay doon pay ci seen affiche point com daw leen nag jënd ji gaaw prévente yi ndax 9 euros 99 dong lay jar waaye nag bés bu ngeen xaaree ba le 6 août 14 euros 99 ngeen koy mën a amee kon daw leen gaaw ndax live ba mosul am fenn ngeen di am foofu ci seen affiche